bëggee di jot ci vidéo yu am njëriñ yi bàyyi ko fii ci sama diine TV da ngay ñëw bés fii ñu bind sabonné soo noppee nga daal di activer cloche bi mooy waral benn njëriñ du la léegi it Fatiha moo tax ma ni la géej la. Mhm. maanaam liñ ci xam yëpp buñ ko doon wax du jeex waaye mënoo wax Fatiha te bas ma la mooy bismillahi rahmaani rahim. waaw Alaaji Pap mhm. maanaam nee naa la liy yóbbu nit àjjana moo gën a yomb liy yóbbu nit sawara. Mhm. li yóbbu nit àjjana mhm. moo gën a yomb li yóbbu nit sawara mhm. saa su nit ki waxee bismillahi rahmaani rahim mboolem benn araf bu ci ne sunu borom dina ko ci dindil ñetti junni ñaawteef bindal mhm. ko ñetti junni yiw allahu akbar moom bismillahi rahmaani rahim bismillahi boo ko xoolee fukki araf la ak juróom-ñeent mooy 19 léegi ki nga xamante ni nii heure bu jullee mu toog def 19 bismillahi rahmaani rahim maanaam bu jullee ba pare ba def baaxiyaat saalihaat mhm. def bisimilahi rahmaani rahim bisimilahi rahmaani rahim ba mu mat 19 mhm. zabbaani yooni yi nga xamante ni ñooy garde biir sawara du leen teg bët allahu akbar maanaam sax saa yoo sëlmalee waaw def 19 bisimilahi rahmaani rahim waaw mhm. ak nit ki nga xamante ne nii tamit mën na ko muy def bis bu jot 787 bisimilahi rahmaani rahim dana defar addunaam day defar allaaxiraam ba allaaxiraam jag mu defar addunaam 700 787 mm-hmm. wala mu koy def 786 mm-hmm. wax la nga euh, nee na di doucement <laughs> parce que ñu ngi bind mm-hmm. <laughs> pour nga pour nga def leen ndànk <laughs> mané 787 bismillahir rahmanir rahim képp ko xam yang koy wër du bis bu jot day jagal sa alakhirah jagal sa aduna. allahu akbar mok 786 mm-hmm. ba tay ji ki nga xamanteni tamit da xey dépense jafé ko mu sonn balay am day jafé lolo bari ci réew mi nak señ bi su xeyé waw bu jant bi jog rek na def ñetti téeméeri bismillahir rahmanir rahim kon koku warul nelaw ba midi waw dedet nelaw ba beut set faaw mu yow teel a jug nelaw ba bët set waaw du maye ak set lu dul maye ak set mag waru koo def allahu akbar sëñ bu mag bi mës naa romb ak kër mhm. nit ñi di jooyoo booba waxtu julli moo jot mhm. fajar gi bi mu demee julli ba ñëw laaj leen lu ñu doon jooy ñu ne ko dafa am ko faatu mhm. mu leen loolu jarul jooy ki jara jooy mooy ki nelaw ba fajar te jugul julli kookoo jara jooy allahu akbar waaye ki nga xamante ne xëy na jant bi di waaj jóg bi muy jóg noonu mu def ñetti téeméeri bismillahi rahmaani rahim mhm. ak cent salaatu ala nabi mhm. allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim sunu borom dana ko jox dépense boo xamante ne nii day lew léegi nag àdduna bii ñu ne ku yabu góorgóorlu ci sa bopp ndax fi ne dañoo toll jamono joo xamante ne bu ñu demee ci armeel yi kenn ku ci ne yaa sa téléphone néew bi sax bu ñu koy dugal ci biir bàmmeel bi amul maanaam ñi koy ñaanal fan fukki lixlaas ak benn bi ñuy def. maanaam dañ koy parax paraxee duñ ko jàng. ki nga xamante ni nag mi ngi dund te deewagul alaaji pap kooku na jéem a fexe ci dundam donte benn benn cinq heures de temps lay toog wala trois heures de temps def bismillahi rahmaani rahim douze mille mu wóor ko ni bu ko xasee ba def moom bu deewee day dem ajjana mu defal ko boppam. maanaam mu defal ko boppam yéene ko fi daawu na fi daawu boppam. douze mille bismillahi yoon benn sa dund ko def boo dee doo dem doo dem safara gars yi loolu de xam ngeen am ngeen jat bi de douze mille douze mille douze mille yooyu noonu la mënee faj ajo douze mille bisimilahi rahmaani rahim waaw maanaam noonu la mënee faj aajo jamono yële joxe woon naa ci benn sangat bu garaw boo xamante ne nii képp koo xam bind nga ko fukki junni ak ñaar mhm. nga dugal ko ci siwo mhm. def ci ndox gas ba mu xóot suul ko mhm. ba mu mat fukki fan ak ñaar nga sulli ko sangoo ko heure boo sangoo nga fexe ba wérdi ko fukki fan ak euh, maanaam fukki junne ñaar mhm. bu fekkee mënoo ko wérdi yow fukki junne ñaar nga wut ku la ko wérdal fukki junne ñaar mhm. maanaam wërsëg bi mu lay jox moom dañuy dem ba jàpp ni da ngay luxus wala dara allahu moom ci douze mille hmm. rahim day dindi liggéey douze mille rahim day tax yàlla jéggal la say bàkkaar am na ci beneen boo xamante ne ni mooy douze mille cinq cent koy suul si bi fukki ñaar ñaar ak ñaar waaw boo boo ko du boo ko suulee ba mu mat fukki fan ak ñaar nga sulli ko ba mu ba nga sangoo ko fukki fan ak ñaar waaye heure boo sangoo bu la neexee nga jël sa xaalis nga xool ku la mën a wérdal nga fay ko mu wérdal la ko fukki fan. maanaam fukki junni ak ñaar. dama koy def bu matee. Mhm. maanaam sunu borom dana dimbali ci yooyu. moom ci bismillahi rahmaani rahim. Uh-huh. bismillahi rahmaani rahim nag. Mhm. am na ci ay ay ay yooni yoon yoo xamante ni nii du am solo la. ki ne boo te ni mu gàttee noonu tudd ko yomb noonu njëriñ li kenn xamul mu toll. déggoo ma ni la benn araf bu ne ñetti junniy ñaawteef bindal la ci ñetti junniy yiw boo xoolee ñetti junni yooyu boo ko multiplier par 19 day doon 47000 ci ay ñaawteef yàlla dala koy dindil. nit mu wér del la. mën naa nekk kay. Ah. Mhm. mën naa nekk. ndax ni ngay joxe nit mu di la jàngal alquran bu faatoo maanaam li sëñ Tuubaa wax ni isduhaa mhm. yan fahu maytan fil xubuur mhm. wa yan fahul xayye wa yujibul ujur mhm. ñaan day jëriñ ki ne ci biir bàmmeel waaye day jëriñ ki nga xamante ne nii moo moo moo mooy mooy mu ngi dund waaw looloo tax nag euh, bismillahi rahmaani rahim moom it buñ ko toppoon fii ba suba moom duñ fi jógee ci basmala bëggee di jot ci vidéo yi am njariñ yi bàyyi ko fii ci sama diine TV da ngay ñëw bés fii ñu bind sabone soo noppee nga daal di activer cloche bi mooy waral benn njariñ du la raw